ngir jaamoo ko yàlla ñenn ñi xaaj seen dund joxe ko ñenn ñi xañ seen waa kër xañ seen njaboot joxe ko pour mu dem ci malaat bi rien que rek ngir suñu borom mën koo may feex te yàlla nag moo ne ku santul nit doo sant yàlla kon jërë ngeen jëf yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci participer ak ñi nga xam sax ñi ngi ñuy ñaanal à travers Dakar Buzz te gisuñu leen gis nañu ñaani ñi ngi ñaan suñu borom nangu ñaan yëpp te yàlla boole na ko tey nu ñëwaat ci kaaw Aminata Cissé Nanette mais tey dafa xaw a am tuuti différent ak ñin daan ñëwee ñëw naa fi bu njëkk ñëwaat fi ñu compter 3 millions ñëwaat fi ñu compter quarante et quelques millions tey nag dañu ñëwaat tey pour am lu nu bëgg leeral leeral bi nag du dara dul parce que Aminata Cissé Kaam dafa toll pour ñu jàppale ko ñu gis àdduna bi yëpp ñun ko bàyyee xel kenn ku nekk jël kaa bi def ko sa kaa ñenn ñi def ko comme doom ñenn ñi comme jarbaat ñu gis benn vidéo bi surculer ci internet bi booba léegi kooku tam di ndijaay ci Aminata Cissé mu jaaxal ñu nag te wax dëgg yàlla nenet actuellement li mu soxla mooy ku ko jàppale parce que nag ku toll ci situation ku la jàppale nga soxla bu ñu gisee si vidéo boobu di circulé dafay jaaxal ñu bari Dakar ba nag du liggéey ci foog naa ak dégg naa day solaat daal la ñëw ci ñi nga xam ne ñoom la soxaloon waxtaan bi mu laaj leen lu waral vidéo bi di circulé ak kaaw Aminata Cissé fan la toll ma toog ak ndijaayam toog ak yaayam ñoom laay après bàyyi ñun yoo ñu dugg ci waxtaan bi du sax yàgg du bari mais pour juste pour leeral la ñu xam ne Kawoné Cissé fan ci toll woon doon sàkku ndimbal di ñaan ba tey foofu lañ toll nuyu naa la. maa ngi lay fay Fadel. tur bi maa ngi tudd Amadou Gaye wante ñu gën ma xam ci Vieux Gaye waaw ah ah, lan nga ci Aminata Cissé na net waaw Aminata Cissé euh, nijaayam laa nijaayam laa ndax euh, euh, man ak yaayam pour Mère Gaye suñu ñaari pàpp yi ñoo bokk ndey ak baay kon Poune Mère sama sœur la Aminata Cissé Nanette sama jarbaat lenqe la. d'accord di gërëm tam jàmbaar yi ngeen gis ñu nekk suma ginnaaw Seydou ñii fukkaa bi yegg tam ñi joué nañ ci rôle bu am solo mooy ñi gis ñi nekk sama ginnaaw app ak ñi nekk à côté ñëpp Seydou dina leen jël parce que le lii dal Aminata Cissé dañ jàpp na ñoo moom ñoo bokk ndey ak baay. ñu bàyyi seen lépp jël seen activité yëpp arrêté ko ànd ak ñoom ci combat bi di def ay caravane di dem guddeeg bëccëg bu ñu demee tey Pikine ginnaaw suba Ouest Foire Nord Foire Parcelles Patte d'Oie partout foo xam ne rek yaakaar na ne bu ñu fa demee rek ndimbal génn fa ñoom ñii ñooy jàmbaar yi volonté wu takk seen digg ànd ak ñun ci combat bi ñooñu tam gërëm leen dafay jaadu ñëpp duñ mën a wax mais buñ nee gërëm nañ leen rek gërëm nañ leen lii am solo daal mooy yàlla gis na jëf ji yàlla yàlla fay leen ñu gis vidéo bi surculer ci internet bi mhm. kooku ne ndijaayam la mu jaaxal ñu bari ndijaay nan la mën a taxawee wax ni loolu kaaw am cité féete na boor yéen ñi nga xam ne yéen yor kaa ngeen di féetewul boor yan leeral ngeen ci mën a indi waaw jërëjëf Fadel euh, maa ngi d'abord sant yàlla bu baax ci euh, ndaje bi nga xam ne am nañ ko yàlla may ñu kàttanal ñu ñu mën a toog ci kanamu mbooloo mi waane ci kanamu Sénégal ak ci kanamu diaspora bi yëpp leeral li nga xam ne moo di mbiru Aminata Cissé nanet ak vidéo bi nga xam ne moo di circuler euh, damay bëgg balaa may commencer rek ma ma wax lan ma am précision bu ma def ci lan moo tax may yëkkati kàddu ndax li tax may yëkkati kàddu du bëgg a wax kese li tax may yëkkati kàddu mooy dama bokk ci famille bi benn ñaar euh, ki nga xam ne mooy porte-parole famille bi muy suñu mag ñun ñëpp muy Umar Fall Umar moomu tey sam papa bi muy dund moom la joxoon kàddu famille bi donc famille bi fépp foo xam ne am nañ fa taxawaay boo xam ne kàddu war na fa yëkkatiku kooku moom lañ daan jóg kàddu gi moom moo koy wax tey nag daf fi nekkul ñu échanger ci moom boobu ba tey te it si seen dund sama dund ñoom papa bi nga xamee ne moom su fa nekkulaan man mii lañ daan jox man maay yëkkati kàddu mu jëm kàddu famille bi kon tey ji su fekkee ne maa ngi yëkkati kàddu ci ndigal laa ko yëkkati laa koy yëkkatee ci kanamu yaayu ami Aminata Cissé Nanette muy pour mère Gaye di sama sœur ci kanamu ay tàntam Anta Gaye mu ngi nii sama ginnaaw ah ak ay sœuram ak ay freeram waane ak ay am di jàmmam kon nag euh, euh, dama am légitimité pour ñëw ci kàddu waane du bëgg a wax rek wala pour démentir du loolu loolu laa bëggoon njëkk a def muy précision beneen bi nag mooy suñu jëmee nag léegi ci wàllu vidéo bi nga xam ne moo di mooy circuler buy def état Aminata Cissé actuellement nii euh, soxlaatul xaalis ndax euh, hôpital boobu nga xam ne moom moo nekk Marseille woolu na ko nee na na ñëw directement bu ñëwee dañ koy jël en charge gratuitement mooy bëgg fàttali ne ñun dañuy liggéey ci administration au monde amul benn hopital au monde boo xam ne dina jël malade di ko faj gratuitement amul même bu fekkee ne dañ ko jël dans le cadre assistante assistance sociale cela veut dire que ne la mu waroon fay ñooñu ñoo koy fay kon amul prise en charge boo xam ne dafa gratuit au Sénégal léegi nag dafa am loo xam ne dama leen ko bëgg a wan ndax dama la koy wan yow Fadel ba pare balaa ñu koy dugal ci vidéo bi ndax dama koy lire fii ñu ngi bind attention vu avec le bureau des entrées le devis effectué en octobre 2023 n'est plus valable lu muy tekki mooy moom amoon na ay këyit yoo xam ne déjà jotoon nañ ko def ba ñu ngi ci doon def ay jéego hôpital bi envoyé ne devis boobu depuis octobre deux mille 2023 la donc devis devis boobu valable tul mu ne les tarifs on changé très bien tarif dafa changé moo tax lan moo ci topp mu ne de plus la somme doit être virée avant toute prise en charge mooy lan mooy que ne nanet balaa hôpital boobu di ko jël en charge somme bi nga xam ne moom la ñu war a def fii dañ ko war a dugal intégralement ci ci dañ ko war a virer ci seen compte ñoom hôpital ba balaa ñu koy jël en charge ñu teg ci lan ñu teg ci donc le rendez-vous avec le docteur Mourti bi nga xam ne moom la doon wax Pape Amadou docteur Mourti mu ne le rendez-vous fixé avec le docteur Mourti le 7 août ne va pas pouvoir se faire a priori donc mooy lan lu muy tekki mooy rendez-vous bi nga xam ne ñu ngi ko jàpp le 7 août tant que lii nga xam ne viré wuñu xaalis bi ci compte bi donc nañ jàpp ne rendez-vous boobu mënagul nekk loolu mooy la première précision bi ma bëggoon def pour ñi nga xam ne ñoo daan jàppale Aminata Cissé ma xamal leen ne tey jii la waalo gën a ay pour que jàppale boobu ku si nekk loo ci mënoon a def nga def ko loolu mooy la première précision ma def laa deuxième précision lii sax dinaa ko wan euh, waaw dinaa ko ko wan dinaa ko ko wan parce que dafay am solo bu ko defee Sénégal yëpp xam ne li ñuy wax waxuñu ko ci ay suñu teeyaayu bakken lii dama ko tiire nii bi ma ko tiiree ma jël ko souligner ko pour que vidéo bi bu koy jël mu jël loolu nga xam ne moom la ñu souligner mu mu leer ne lii moo ci ëpp solo ci li nga xam ne mooy mooy mooy le message de de cette lettre là mooy le message de cette lettre là xam naa ne après di nga ko jëlaat mais la deuxième précision dafa am solo nag bii parce que bii Fadel yow laa koy njëkk wan comme toujours fii lan lañ fi def devis du traitement devis du traitement dañu reprendre lépp loo xam ne maanaam prise en charge bi la woon détail par détail hôpital ba li nga xam ne moom la war a jël en charge yëpp daf ko jëlaat en compte parce que ñu ngi wax fii les tarifs ont changé bi mu ko defee lan la ci teg mu ne total total baa ngi nekk léegi si trois cent quatre mille six cent trois six cent soixante trois virgule soixante deux euros ma ma ma ma ma ko nag ma convertir ko en franc fa bi ma ko convertir en français CFA mu ngi nekk cent quatre vingt dix neuf millions cinq cent cinquante quatre mille six cent soixante onze franc CFA. kon somme bi ñu doon wax sax ñu annulé ko dafa élevé. maanaam somme bi ñu doon wax si cent quatre vingt dix huit millions cent quatre millions bi ñu doon wax léegi dafa yokk ba dem cent quatre vingt dix neuf millions. cinq cent cinquante quatre mille six cent soixante onze daanaka deux cent millions. en en grosso modo c'est deux cent fi ñu toll nii. kon lan lay tekki li muy tekki mooy maanaam yow mënuloo nga ne dañu annuler li nga xam ne moo di euh, xaalis bi nga xam ne moom lañ ko doon laaj mu am devis boo xam ne ñoom dañ ko indi devis biñ ko indee biñ ko convertir mu nekk cent quatre vingt dix neuf millions cinq cent cinquante mille six cent soixante onze te. précision de taille bi nga xam ne moo ci am Fadel xoolal date bi date bi mu ngi nekk Marseille le 23 juillet vingt Marseille le 24 juillet 2024 dara gën koo mu ngi nii ma wan la ko comme cela yow aussi nga mën a jëlaale li nga xam ne moo di somme bi en euro nga jël conversion bi en français CFA pour xam ne actuellement nii en réalité Nanette donte soxla na kayit de wante li mu gën a soxla mooy xaalis bu mat ndax hôpital bi dafa ne su fekkee ni viré wuñu xaalis bi nga xam ne léegi mu ngi toll si cent quatre-vingt-dix-neuf millions cinq cent cinquante-quatre mille six cent soixante onze francs CFA duñ ko mën a jël en charge donc euh, euh, rendez-vous bi la set bi nañ ko tax nañ nañ ci taxaw donc loolu laa bëgg a leeral sénégalais pour dire lan Fadel pour dire lan pour wax ne vidéo boobu parce que loolu mooy question bi loolu mooy question. dama doon ñëw indi leeral yoo pare doo ko tontu si sa question. léegi dafa am solo sax donc mooy wane ni. vidéo boobu nga xam ne moom moo jàll. di nekk dans les réseau dans les réseaux sociaux na ngeen jàpp ne vidéo boobu dara amu ci c'est archi faux dara amu ci li ko wundu nag wax dëgg yàlla xaw ma ko man xaw ma ko de li li tax mu def loolu man mën jéem naa seet ba sonn mbaa ne xaw ma raison bi ko poussé mu def loolu mais daal li ma leen bëgg a wax muy yéen Sénégal yi yéen waa diaspora ngeen xam ne vidéo boobu di circuler di def allusion ci Nanette soxlaatul ndimbal mooy que ne vidéo boobu elle est fausse et archi fausse dara amu ci dara amu ci maintenant ma bëgg wax lenn kenn bëggul toll foo xam ne dañ lay dimbali boo demee ba di sàkku ndimbal mooy amatuloo pexe kon nag may sàkku ci sénégal yi di leen wax ne gis nga bu fekkee ni def nañu benn benn genre jeu lañ laa koy tuddee ou bien benn demande boo xam ne bu ñu jëlee ñaata ngeen waxoon cent mille personnes cent mille personnes rek lañ soxla cent mille personnes bu ku si nekk joxee mille huit cent francs cent mille personnes bu ku nekk joxee mille huit cent francs semaine prochaine du fi fekk nanet am Aminata Cissé te ñun nag suñu objectif actuellement objectif nekkatuñu si ay détails ak ay wax loo xam ne daf ñuy daf ñuy retardé li nga xam ne moom moo ñu moo ñu moo ñu moo ñu itteel fi ñu toll nii mooy naka la ñuy def ba suñu doom ba suñu jarbaat ba suñu petite sœur ba suñu grande sœur ba suñu xarit ba suñu doomu ndey ba suñu am di jàmm par rapport ak képp koo xam ne yaa ngi fii toog nga gis si seen Nanette ñu jël ko yóbbu ko jël prise en charge am faj ko mu wér mu dellu si nekk si ay activité am loolu moo ñu soxal d'accord jërëjëf muy lu am solo loo xam ni kàddu yi leer na te ànd na ak ay preuve parce que li naan dañ naan tubaab preuve la bëgg mais du tubaab rek képp kuy nit ku dëggu preuve nga bëgg kon loolu leer na féete na boor yaayu ne net li ma jaaxal ki def vidéo bi ne Aminata Cissé soxlaatul xaalis lan la ci jublu asalaamaaleykum waa Dakar Buzz Fadel maa lay nuyu di la ziyaare di la jox sa wàccuwaay di nuyu xale yi toog fii di ñaanal sama yaay fa mu tëdd yal na àjjana di noflaayam mook sama papa ndax kum fa fekk ak kum fa ku ko fa fekk di julli ci sang-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di nuyu xale yi toog fii ñoom ñëpp nga xamante ne komba bi bañ ko lancé ba tey ñoom ñëpp fajar la ñuy xëy ñëw amatuñu benn yitte amatuñu benn soxla lu dul xaalis bi mot rek na net faju mooy seen yitte ñoom ñëpp te yal na leen ci yàlla jàppale question bi nga ma laaj nga ni lii sama mag bu góor bi def di sama taawu baay ñu bokk ndey ak baay sama baay moom rek la am ci doom bu góor moom rek lañ am ci càmmiñ buñ bokkal ndey ak baay bu sant gay kon defar naa ni li may naqari warutoon jóge ci moom ci jàmbur la waroon a jóge boo fàttalikoo sa première vidéo fii laa toog ne samay mbokk gërëm nañ ma te Fadel mbir bu ñëwee ci sa kaw bu la say mbokk jàppalee rek doo ko yëg kon tey su ma wàññeeku waatee di waxaat lii am naa ci xol bu metti torop torop torop torop torop nan ko comprendre parce que li tax ñu ñëw def lii dafa am frère bu mu bokkal ndey ak baay bu ma woo fois ne ma damay def point de presse kaaw am Cissé ne net féete na boor hôpital bi laajatul xaalis man li ma naan benn lay du paak amoon naa possibilité pour dem fa jël ko mais dama ni non parce que su ma demoon jël ko tey video bu circulé à travers Dakar Buzz mën na yàqal lu bari nanet comme defaroon tax a jóg ma naa bàyyi ba gis yaayu nanet bon d'après nag parce que mbir su amee day am lu tax mu def loolu lan la peut-être lan moo dox ci diggante bi ba tax moom mu bëgg insister ci bu ñu yónnee na leen xaalis lan la ñu xam parce que Sénégalais tam loolu bëgg naa mu leer seen bopp ñu xam parce que nit ku bokk ak yow ndey ak baay am fit bu toll ni taxaw ni kaaw na féete na boor ci lan la ko teg loolu tam jaaxal na nit ñi nga teg soxol wax lan ngeen yan kàddu ngeen weccoo ba tax moom peut-être am lu mu bëgg loo ko xañ mu tax ni lii laay def wala lan la parce que nit ñi xam aussi aussi. ñu am 3 millions dama laa woo nga ñëw toog fii ma génn 3 millions yëpp tegal la sa kanam ñu demaat ba mu yàgg ñu am 40 millions 196 mille ma woowaat la ba nga ñëw ma tegaat ko lépp ci sa loxo avant ñuy am 40 millions yi bi ñu dajaloo yi fii compté dañoo am 25 millions mu ñëw fii la toog keroog fekk si ma fii ca ëllëg sa mu ne bu nu xëyee nan ko fekk géejawaay ñu fekk ko géejawaay daldi ne nanet hôpital bi nee na léegi du fayati dara kii bi ñu defoon devis bi ñu defoon en mille 2023 nee na devis boobu konteetul bokkatul léegi na ñëw faju yéen preuve la ah preuve yi ma woon daal que ne hôpital bi moom jox nañ ko këyit boo xam ne ni bu ko nanee déposé ambassade France dinañ ko defaral visa lii la su ma paree nag dinaa ci wan ba ma yeggalee ba pare yaa ngi dégg ñu dem kër ga daja fa di waxtaan sama bàmmeel laa toog su fekkente ni maa ngi koy sosal lu day ni tarafatal ay ni nanet yàlla bu mu jóg waaw parce que toll na ma foofu ndax li tax toll na ma foofu su may tàllal sama loxo nanet di sama nawle xale yii di samay nawle di ay moroomi nanet may wut ndimbal moom mu taxaw ni nanet soxlaatul dërëm. da ngeen bokk ndey ak baay muy sama càmmiñ di ndijaay ci nanet kon leer na nag ma wax lu la nga xamante ni nii moom la sénégalais yi mën a dégg xëy na man samay wax su dofee it sénégalais yi seen nopp nite seen dégg-dégg nite mu ñëw toog fii ba mu toogee fii ni ñu bu subaa ngeen ñëw kër ga ah ñu xëy dem. mu daal di ne nanet neb hôpital bi toppatu ko dara waxtaan naag euh, woo naa hôpital bi jot na assistante sociale bi nee na devis bi ñu defoon en 2023 devis boobu konteetul léegi nanet na ñëw bu ñëwee dina faju parce que laajatuñu ko 188 millions léegi 25 millions yi ngeen yore da nga koy jël viréel ma ko sama compte ma ne ko mu duma ko def xalaatuma ko duma ko def duma la ko viiral tonton Pape kii ay million wa koy faj te yow benn salaire nga am amoo benn revenu amu doo man doo doo homme d'affaires doo dara doo commerçant doo directeur de société yow salaire kese nga am yow li ngay am boo ci fayee ndox courant sa dund sa lekk sa naan ñu bugg ci tiire fayu nanet foo jëm kon yow attanoo nanet bàyyi ma ma dem seeti koo xamante ni nii attan na nanet mën na ko jël prise en charge ma jël man li ma yore yëpp ma jox ko buy dollil nanet mu dollil ko nanet dem faju bu dee it leneen na ci amit mu wax ma ñu xool nu ñuy arrangé nanet am prise en charge faju wa ilaaka état jël ko ñaari solution yooyu rek moo mën a am keroog la jàmm gëj a am ba lii fii du dara nag lii kese la dugalal xaalis bi sama compte ma ne ko maa bañ mu sol mbubbam dugg ci internet bi ne laajatuñu na ne dërëm dañuy arnaquer sénégalais yi il faut que sénégalais yi xam dëgg bi lii ñuy def nii lii ñuy def naa lii kese la leneen lu la ci doomu aadama wax te waxu la lii xamu ci dara ndax loolu bi muy am ñiy toog fii ñëpp kenn fekkew ko te nag ñii mënoon nañ ko bañ a fekk ñii mënoon nañ ko bañ a yëkk te bu desoon ci man kese ku ma xam laa jël sama famille néegu ndey néegu baay ku ma xam ba mu xam ma bu wér dina la ne li mu wax moom bu génn toon wax ñetti fanu bàmmeel ñii ñëpp kenn du ko yëg ndax duma ko wax ndax damaa sang sama deru famille ba pare kon duma wàññeeku waat di ko tilimal. mu mel ni wax jooju tam am na leen lu mu dolliwaat ci feebaru Nénette ba Nénette actuellement mu ngi hôpital mm-hmm. est-ce que sax moom malaat bi nga xam ne mi ngi tëdd di xaar ko jàppale. war nay dégg message yooyu am naak amul arnaqueur la ñaangam détail yooyu ba mu indiwaat problème ba mu delluwaat. waa léegi nag loolu li tax mu am bi ñuy indi vidéo bi kontaan daw si naan ma wuy na jël nañ ko en charge man dama génnoon sax. vidéo bi daw na 6 heures man maa ngi ko yëg 21 heures ndax jour boobu sama rakk bi moo fi ñëw ma dem gunge ko su ma ko gungee dañuy toog fee di waxtaan. tuuti ci mbiru nanet rek la ñuy waxtaan bi ma ñëwee la nii ne ma woy alhamdulilahi rabbil alamin ay vidéo nanet nanet jël nañ ko en charge ma jël vidéo bi mu wan ma ko waaye xam nga nit ak mbokkam ma am retenu neew ma ko du dëgg neew ma ko dëgg la xam naa ne li mu wax du dëgg waaye waxuma kii dara dama ko ne ah waa baax na de wax dëgg yàlla baax na comme que boobu moom tëb na rekk wax loolu te man aw ma benn preuve bu leer ne li mu wax du dëgg mënumaa tontu mënumaa wax dara damaa dem wuti sama ay preuve d'accord yooyu nag laa bëgg ñu nga détaillel ma preuve benn par benn ma xam. bi ma wutee preuve yi téléphoné foofu euh, sama benn xarit bu nekk Marseille moom laa woo mu am ku ma booleeg moom bi mu ma booleeg moom moom moo sol dàllam dem ci hôpital bi. woo na ma démb. woo na la waaw kay bi mu ma demee ci hôpital bi wax leen kaawu Nanette ñu ne ko ah il faut médecin bi def. woo médecin bi nekk euh, dalal jàmm docteuru nanet bi woo docteur bi nekk Marseille ñu waxtaan mën a ñu mën a defaral nanet këyit bi dossier bi léegi kooku bi mu woowee docteur Muxti boobu nekk foofu si lañ ko jox këyit bii nga xamante ne nii mooy wane ni bu nanet versé wul xaalis bi ba mu mot ñun këyit bi ñu bëgg ñu defaral ñu ko duñu ko am mooy lii mooy lii tamit. mooy bi ma woon ba pare xaalis bi mooy verse bi tam daf cee dolliwaat défi bi dafa yokk. défi bi dafa yokk ñun ñu ngi ñu doon laaj 188 million tey ñu ngi ci 200 millions yu manqué tuuti kon bon xanaa nit bu la laajee bu la nee dalay lay wàññil mu laaj la fanweer ne la boo ñëwee doo fay dara ci hôpitalu tubaab tudd hôpital public privé la. xanaa bu lay may dalay wàññil waaye du la may lépp rek yow du ONG jëlu la état jëlu la amoo prise en charge amoo dara tubaab ne la ñëwal ma faj la laajatuma la dara man loolu jaaxaloon na ma. nga wax lan sénégalais yi ñu xam ne Kaaw Nénét fa mu nekkoon tey la gën a daar daar tey la gën a soxla. kayit bi la la am léegi nag këyit bii nii mu ma jox ne naa ko dem déposer ambassade France mooy wane ne pour Nénét am visa lii la. lii la de na ko këyit lii mu ngi nii. moom fa la jëlee kay. xaw ma fu mu ko jëlee nii nii la ma ko joxee xëy na hôpital ba ñoo ko ko jox wala je ne ndax bu koy jëlee foofu foofu la ko rek mu na jëlee léegi te ñoom nee nañu nanet bu versé xaalis bi du dugg léegi moom bu dee këyit bii mën na ci am visa nanet dugg li Galmet faju te du fay dara mu dem déposel nanet mu dugg Pawli Galmet te du fay dara su dee mën na ko li mu wax su dee lu nekk la na dem déposé. na dem. bu dee mën na ko ne dem déposer moom tam ñanu woo ci cent 611 11 indi ay leer la bu dee mën naa def démarche yu nawet mën a génnee dëkk bi ci gratuitement pare nañ boo nu wooyee foo nekk ma fekk la fa mais polémique bi bari est-ce que lii baax na ci état de santé malade bi nga xam ne mi ngi tëdd di souffrir. waaw gis nga gis nga gis nga Fadel euh, euh, maanaam maanaam ku wér sax lii baaxul ci moom. tey jii bu ngeen xoolee yaayam yaayam maa mag fuuf. fuuf laa ko magee mais yaam boo ko xool dafa mel ni moom a mag fuuf maanaam stress bi muy dund depuis ay weer ci situation wu nanet am nanet indi nanet mu am benn pression bu nekk ci moom ndimbal bi muy sàkku ci doomu aadama yi ndaxte famille am amuñu ko ndax ndimbal googu dana mat wala déet ñu wëlbatiku situation bi dalaat ci kaw na ne dinaa la jox benn benn benn information vidéo bi Pape Amadou di nijaayam bi mu ko defee nanet bi mu ko gisee ndax li yaayam wax léegi maanaam vidéo bi mu yegg si fii ñi ko njëkk jot xamuñu nijaayam dañ defoon ne waa état ñooy wax. ñu gëm ko ñu gëm ko daw ñëw fii feet ci lu nekk ñu def ko mais bi mu yeggee ci. nanet nanet bi mu ko gisee nanet instant boobu la woo nijaayam ci boppam ne ko xaalis jarul lii. loolu moo ko moo ko moo ko moo ko yóbbu ba mu am ba mu piqué crise depuis jour boobu ba tey. bërki démb ba tey fii la piqué crise noonu lañ ko yëkkatee yóbbu ko directement dalal jàmm ba léegi mu ngi foofu ñu internet maanaam loolu mooy wane ne ndegam baaxul ci nit koo xam ne dara jotu la massa ku feebar ba nekk ci état boobu donc forcément situation nanette lii nii buñ ko gaawulee fay loo xam ne la daf koy affecté d'accord ma ci lance un appel nag ci yéen bon volonté yi nga xam ne lu baax rek leen tax a jóg te gis neen li ngeen ci jàppee leen di jàppale Nanette kaam tey la gën a soxla ndimbal tey la gën a soxla ko jàppale ndijaayam ji def vidéo bi tam ni soxlaatul xaalis dàquma li nga wax woo ma ci 78 611 11 am naa possibilité boo ma wooyee ni ma tàllal la sama micro nga wax ma yow it yan détail nga mën a indi ak yan preuve nga mën a am ak foo jëlee preuve yi ne nawet mën na ñëw faju ci gratuite ñu déglu la peut-être yow it mën nga noo convaincre mais daal bëgg naa nga woo tam ñu waxtaan ci loolu lan la lan fal ko jëlee mais daal li may gën a insister nunu jàppale Nanette ci la am problème ba delluwaat hôpital Dalal Jàmm kaaw na nekkul kaa bu mën a xaar nañ ci état taxawaat encore une fois kenn seen doom kenn seen jarbaat kenn ci seen ki xam ne moom mooy seen moom mooy seen mooy seen rakk moo feebar te ku xool Nénette avant ak léegi xam ne feebar bi mi ngi évoluer gis naa ko première gis ko deuxième xam naa ne feebar bi arrièreul dafay avancé kon nag bëgg naa ngeen dimbali ko ci lu mu gën a gaaw ngeen dimbali ko jàppale ko parce que nag ku sonn ko jàppale mooy dimbali te leen soxla na jàppale. waaw loolu loolu dafa am solo Fadel ba nga xam ne appel bi ñuy lancer actuellement population wu senegal mooy que ne bu ñu xoolati mbiru vidéo bu ñu xoolati mbiru kàddu bu ñu xoolati ku bokk ak Aminata Cissé Nanette nañu xool jëmmi suñu borom subhaanahu wa taala nañu xool jëmmi yàlla. te xam ni kii xale bu ndaw la muumin la tolloogul dara ci àddunaam kon soxlawul dara lu dul jàppale ñuy wax ñuy lancer un appel à l'état du Sénégal état du Sénégal la ñuy lancer appel suñu lancer appel état du Sénégal mooy gouvernement bi yëpp dans sa dans son intégralité waane particulièrement le président Bassirou Diomaye Diakhar fay ñu ngi koy woo ci lii ndax nag situation dafa am fu muy tollu yow ci fa ngay mën a sukkandiku se fa ngay mën a wéeru mooy état mooy présidence mooy président de la république tey jii ci moom la ñuy wéer li nga xam ne mooy kaawu nanet ñu ngi woo le premier ministre Ousmane Sonko ñu ngi woo tout son gouvernement à ce ñu dugal seen loxo ci kaawu Nanette bii kaawu Aminata Cissé bii ndax nag lu dul wàññeeku mu ngi yokku lu dul dellu ginnaaw mu ngi avancé te feebaram bi delluwul ginnaaw kon mu ngi avancé kon nag appel boobu la ñuy lancé le gouvernement appel boobu la ñuy lancé la population sénégalaise appel boobu la ñuy lancé toute la diaspora pour que ñu jàppale Aminata Cissé mi mu mën a dem faju ji dans les plus brefs délais dellu si waat mën a nekk ci ay activités mën a nekk ci wetu yaayam salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf bokk yi kon fii la ñuy wàcce suñu kàddu surtout que tey doon ñëwoon pour leeral rek euh, tournage yaa ngi nuy xaar te li nekk suñu ginnaaw bari na mais di leen gërëm di leen sant li ngeen jot a dugal ci nawet nu ko mais wéy leen di ko jàppale te xam ne ki sonn ko dimbali mooy bokkoom jërë ngeen jëf yàlla ñëpp am jàmm jërë ngeen jëf. Kër Deme maa ngi dégg si koñ bi. Babacar dafa am kàddu goo wax sànq nga ni. bon ñun ñooy bay faalu nanet hmm. parce que bi coow bi amee. laajal maire. man taanu naa ñetti yoon si caravane bi. ndax coono. Hmm. mais tey pour commencer. sama collègue yi ma àndaloon yëpp. ñii dañu meroon parce que barki dem fii laa toogoon wax ak ñoom di leen ne dañuy continuer léegi nag yéen laay waxal ñun ñooy Baye Fallou Nanette nañu jalaat suñu camion à partir de demain matin ñu defaat suñu caravane ñu dimbali tonton bi dimbali famille bi ñun bokkuñu si famille bi mais man léegi si fa ñu ñëpp si famille bi lañ bokk man seen dëkkandoo la j'habite tout près d'ici biñ ñu waxee caravane bi première fois bi j'ai marché ba 19 heures ñu ma ñu nag fii dam leen koy gis ngeen ñu toog ni jox nañ leen sa xaalis pour ñu naan café sa xaalisu nanet ñoom bëgguñu ko. sànq ma gis bi tourné nga jooy lan la lu tax nga jooy. non parce que euh, li ma metti rek mooy li yaay ji wax dafa metti torop li tonton ji wax dafa metti torop parce que mënoo teg nit pression mu feebar ba pare nga génne benn vidéo boo xam ne. def ñu teg pression ñun ñëpp parce que ñun tam gëmatuñu woon suñ bopp parce que doon bañ suñ der yàqu si loolu parce que biñ toogee fii man ne leen dañuy delluwaat caravane bi certains disaient il faut que ñu leeralal lii ba pare ñu ñu doog a dem caravane. nga wax lan ki def vidéo bi. Hmm? ki def vidéo bi lii jaru ko lii jaru ko parce que nga jël sa set ku mel ni sa set nga koy def lii metti nu lool te metti na nag si côté yaay ji. parce que depuis dem maa ngi ko bëgg a gis dama am ay nit yu ko bëggoon gis mais ñu ko fexe ba gis ko léegi nag loolu man damay ne weesu na nañ ko teg fële ñu continuer waat ñun luñ doon def. ñun Baye Fall Nanette. ñun Baye Fallu Nanette. merci beaucoup Baye Fall.